Besmele auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa sallama tasliman mbokk yi lii ab liggéey la bu ama am solo bu nga xam ne dañ koo def ci kenn ci jàmbaari lislaam yi ñu koy wax cheikh amsatu mbàkke ibnu cheikh abdul ahad mbàkke ibnu cheikh ahmadou bamba xaadim rasul muy liggéey boo xam ne dafa topp sëriñ bi ci ak ndawam ci zahir ba ni mu nekkee tey magum lislaam ñu nga xam ne ci zahir ba mu nekkee tout tànk ñoo doon and ak mom ba tay ni ñu nekké magi l'islam euh, seeti nañ leen ñu wax ñu lu bëree bëri ci sëriñ bi ci côté euh, spirituel ak côté temporel aussi waaye xamal nañ ñu itam kan mooy sëriñ am Amsatu Mbàkke doomu si Abdou Lahad la surtout sëriñ tuwa la waaye bi sëriñ tuwa la ci wàllu ko Cheikh Abdou Lahad moom doy na ñu mu ne doomi sëriñ tuwa la nekk trois troisième xalif général de Mouride nekkoon bâtisseur doonoon jàmbaar daan ko woye ñàkk caaxaan euh, tur wu dégg na ko ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi kon kooku doy na sëkk màndarga ci ñoo la mooy sa baay mu doon jëmm joo xam ni day doomi ngërëm ci ñaari fànn yëpp ndax kenn nattab lu wut ni Sëriñ Abdul Ahad laq na ngërëmal Sëriñ Tuubaa way juram waaye soxna Isa Gay mi nga xam ne itam mooy way juram wu jigéen kenn nat tëble wut ni laq na ngërëmul sëriñ Abdul Ahad mu bokk ci askanu Kàbbu Gay te ñooñu boo delluwaate seen cosaan xam ne ñu yàgg ak sëriñ Tuubaa la incha allah dara ko foofee nekk fa eet ba ñoom ñëpp ñu ñu jógee foofu ñëw di ay taalibe yoo xam ne naka jëkk ay gor lañ doon di ay jurit waaye ay taalibe sëriñ Tuubaa yoo xam ne seen lépp dañ ko jox sëñ bi kon fi mu ñaar ñu ko meññ rek kuñ meññ rek war nañu am yaakaar ci yow waxtu waa nga ñu ko jëf si bopp yëmu ci ne moom suñu Abdou Lahad sama baay yëmu na suñu Tuubaa sama maam waaye daa jëf-jëf boppam jëf-jëf mooy nit ki li ñuy wax isbaat sa ki day day day mooy imposé boppam teg sama sa bopp ci ci ci ci ci marché bi man damay diw hmm? doomi sëñ Abdou Lahad la wala doomi sëñ Fadil la wala doomi sëñ bi la loolu lépp baax na li baax baax lépp ñoom def xam nañ ko waaye li ëpp solo rek mooy nga jëf si jëfi bopp yow ba ku la gis xam ne euh, diw sàngam nga. am satu jaaxate la ko lañ ko tuddee am satu jaaxate nijaay <clears throat> ci juram sëñ Abdul Ahad di koo xamee ne yàlla defal na tawféex tawféex mooy fu mag ñi jaaru jaar na fa mooy tërbiyewu tërbiyewu mooy ëpp solo ci yoon yi. ñu ñëwee ko sëñ am satu jaaxate sañ am satu da koy yëkkati jox ko doomam ji ñuy wax sëriñ Cheikh Jaaxate mu di ko jàngal alxuraan fa la fa la jànge alxuraan jàng fa xam-xam. boobu man it fekk na sama kër euh, nijaay ñu wax sëriñ As Jaxate nga xam ne mooy rakki sëñ Cheikh mi doon jàngal sëñ Amsa fekk na man it ma daan fa jànge xam-xam ak daan ñëw ci kër sëñ Amsa du sama kër maam nga xam ne bu ne ñu jàngut ak lépp te la ñuy ñëw naan ataaye ñaan way nu ñaar dërëm wala juróomi dërëm ñu dajaloo fa ñun ñi nga xam ne ay sëtam lañ di foo Euh, foofu la nga xamante ne boobu muy tànk wattu alxuraan it wattu gu rafet xifsan wa tilaawatan wa tajwidan boole ci li ñuy wax ay boole ñu mokkal ko bu baax a baax kooku xam na xuraan xamin wu rafet jàng xam-xamit xeeti xam-xam yi mu géeju ci lool bu dee ci fiq man nga ne faqih la bu dee ci nax naxwu noonu bu dee ci mantiq bayaan xarut xam-xam yooyu yëpp jëm ji may wax ku ko xereña la lool te xam naa ci dara bu fekkente ne ci wàllu luxal arabiyat noonu bari waa na ci téere yu mag yi nga xam ne lu ci gën a bari ci gone yi léegi jàngatuñu ko mooy lu mel ni ki maqamatul ariri ak soxadaawul jahiliya léeg-léeg ñu ànd ci woto mu di ci tari lu bari te xam naa ne ba mu cay gës yi léegi xanaa ñeent fukki atam jëm ab ëpp na ñeent fukki te kon ba léegi mu di ko xam di ko mokkal kooku ba jàng jotee jàngoon na jamono ji mu mokkal alxuraan xam ne Tuubaa la bo xamne ne liñuy ñuy wo diko pukkare moy di raw mala la jang sun borom ko defal ko ak fatu mu di ak ubbeeku ci walu xam-xam mu mu bari xam-xam lol te dégg lim jang ba noppi mokal ko bi wam agge ca keur serigne Cheikh Jaxate moom am Amsatu Jaxate mi bok ak soxna Mariama Jaxate mi mi wayjuru serigne abdou Ahad ak serigne Soñe bu lepp ba ba mu fa jaaree ba àggale aliwaam sëriñ Abdul Ahad da koo jox woy juuram sëriñam sëriñ Saliou. li war ci doomi soxna dafa ko def ndax daf juddoo sëñ Abdul Ahad da ko yóbbu ci mu jàng am xam-xam Alxuraan ba mokk ko bind kay jàng yëpp xam-xam ko mu yëkkati ko teg ko ci sëñ Saliou nag mu tërbiyee ko. tegin waat amin yoon woo xam ne ca la ko jaarale ne ko bis ni ki tey doo doo fanaan te amub sëriñ sëñ Saliou nag naa la tànnal. mbubb mi ma bëgg nga sol ko nag ci sëñ Saliou rek nga koy sole mu dikk sëñ bi njurul la ko sëñ Saliou njëkk a yóbbu njurul metti lool ci mankim ndox ak yi aju ci daara rek yëpp it mu muñ ko te lépp booba mu ngi kës kësi Abdoulaye lépp nga fa kër bàyyi bu mu fa jógee sëñ bi indi ko njàpp ndal la ma fekk en quatre-vingt fin quatre-vingt-six quatre-vingt-sept mu dikkee njàpp ndal daara je manque ndox ak lépp rek metti fa lool waaye mu muñ ko ngir wut ngërëmul Serigne Touba nekk ca loola Serigne Saliou wët doyloo ko lool ci lépp ba yegg na Serigne Saliou daa xam ne am satu lu mu dugg mu lu dugg mu sotti am satu damaa jik lu mu dugg mu sotti daan waxtaan ak moom waxi biir yoo xam ne menn moom laa xam ne moom la Serigne Saliou daan wax waxal wii privé mujj na sax Serigne Saliou defoon ko muy généralu daara yi ndax lu tax mu defoon ko loolu mooy def ko waxoon ne ko yow da maa jik moo tax takku sa dëggu te lu mu ko wax loolaay nekk ak nag am fitam ak ñeme engagement yu mel nii sax bu mosaa di ñëw ca daara ya daara joo xam ne sëriñ am saa nga fa ku fa nekk dala naa bu ñëwee bu ca am looy wax bu ci am looy def lépp na ngeen ko bàyyi ci loo xam ndax moom de lu ci def lu lu dëpp ak la ma ndax xamoon pasté woon ci moom wax ne sa law moom def lu lu dëpp la ma ca bëgg doon na jàppale sëñ Saliou jàppale goo xam ne sëñ Saliou moom xamaloon na ko boppam te ba ba mu fay dem am na lu ko baayam waxoon loolu nag mu def ko yóbbal ba ba sëñ Saliou gërëmal ko boppam wax ko baat yii na ko danga nangu ndigal ba noppi ñeme ndigal maa ngi ñaan lu ndigal di maye fekk la fa nga ne. jaaxale ga sëñ Saliou waxoon la ci njàpp njàppandal ne la maral wii am njàppandal jaaxal na ma lool. mbaadu mbaadu am sotti damaa def lu naqari yàlla mu ne ko déedéet mbàkk def lu naqari yàlla. ma ne damaa gis taw bi wóoy sama wóoy sama tool yi rek fu ne maa ngi fa dégg waame mu ne ko ah, bu ci amul jaaxle tool yi day yegg colet ñaan ci barke suñ tubaa yàlla sottal loole sëñ bi daa dellu dellu si tubaa mu fanaanee taw bay 4 heures moo ko ba ñu tàmbalee ba ay 8 heures 9 taw bi sóobaataat ba 11 heures ci bëccëg bi sëñ Saliou laajee ñu ne ko njàpp na la ndookaa fépp tooy na xepp bi sëñ bi dikkee ñaari piisi bassin la yëkkati jox ko ne am bopp sa ñaanu sa sa sa addiya ci sa ñaanu maam gi sëñ Saliou koo xam xamoon na ci liggéey rek ci la nekkoon te la suñu am satam ku jege woon sëñ Saliou la xam li mu ci xam xam naa ne ñun sax duñ ko xam ndax daan daan waxtaan ak moom. te mën naa wax ne la laata muy jógee ci kër bayam di dem ci loxoy sëñ Saliou am na ngërëmul bayam am na ngërëmul sëñ Abdou Lahad ba sëñ Abdou Lahad sax seeral ku ngërëmul sëñ Touba ci moom. maa ngi fàttaliku bis bi nga xam ne moom laa jëkk wax tëdduma ci kaw wàcc ci tëdd suuf mu ne ma looy def ma ne ko fii laay tëdd mu ne lu ma ne ko fii laay tëdd tëdd bët set suñu morom dikk seesi fa nekk ku toog ci sees ma toog ci suuf mu ma toogoo ci kaw ma ne ko ci kaw mu saaga ma dama ko wax ma la ko neex ma ne ko bay boo de yaakaar naa tey <laughs> ñëpp def nañ ne man <laughs> ñëpp def nañ ne man doon ku bëgg ak mbokk te tabe maanaam li gën a jafe nag mooy tabe ci sa alal moom yomb na waaye tabe ci sa daraja si am sa daa boole tabe ci alalam ak tabe ci darajaam boo ko maanaam darajaam moom mën na la cee may loo xam ne lal bi mu toog bu la neexee ngeen bokk. kër sëriñ sa du jaxate la jàngee alxuraan ba mokkal bind kaamil jàng fa xam-xam ba géeju nga xam ne mboolem xeet yi xam-xam yi ñuy jàng ci euh, li jotaay yi ñuy wax majalis am sa mottali na ko waaye bi ko sëriñ Abdul Ahad euh, di indi ci kër euh, sëriñ nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate daf ko ni bi ma sëriñ Tuubaa di yóbbu ci sama nijaay sëriñ Amsatu Jaxate ngir jox ma ko ngir mu jàngal ma dafa ni ko am naa yaakaar ci moom am yaakaar yu mu amoon ci man la wax sëñ Amsatou ne ko moo tax mu bëgg la koo jox dénk la ko ma jàngal ko ndax am naa yaakaar ci moom waaw yaakaar jooju sëriñ Touba amoon ci moom nag sëñ Amsatou nag ba tey moom lay yeesalaat moom itam ci digganteem ak sëriñ Amsatou moo tax mu jox ko ko waaw mel na ni yaakaar jooju sëriñ Touba amoon ci diggante sëriñ Amsatou ak sëriñ Abdou Lahad nam ñàkk tase mën nañoo wax it ne yaakaar ñi mu amoon ba jël jël sëriñ Amsatu Mbàkke nii jox ko sëriñ Amsatu moomee yaakaar joojeet noonu la ñàkk a tase ndax lépp luy xeetu xam-xam jàng na ko fa euh, waaye ba mu fa jàngee ba noppi nag euh, sëriñ ab Ahad daf ko nii dafa am beneen liggéey bu ma lay liggéey loo boo xam ni da ko yëkkati jox ko sëñ Saliou ne ko gërëm naa la waaye boo laqee ngërëmam laq ngeureum la nga laq sama ngeureum nga laq ngërëmu sëriñ Tuuba sëñ am <clears throat> ko wat dem and ak seigne Saliou mbolam fu seigne Saliou samp dara seigne am sut nekk na fa di jangal gone ya waye nak boole jang jang ak liggéey di euh ni ko dong yëpp di defee di bay di taxan lépp di ko def waye nak boole ko yor jang njàng ma bari na boroomi xam-xam yo gis tay ci dëkk bi ci loxoom loxo si suñu am sa lañ jaar mu jàng leen yar leen te ñooñu boo leen gisee da nga leen xemmeem ndax ay tànneef lañ nga xam ne kon liggéey bi ndono la ci moom ak njàmbaar geet ndono la ci moom ku xam sëñ Abdou Lahad da nga xam ni eh, fa la jàmbaar mën a yem liñ ci mën a tënk mooy Serigne Amsatou Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Ahad jàng na alxuraan comme ni ko doomu soxna yëpp di defee waaye tamit dafa wëlbatiku tarbiyo itam comme ni ko murit yëpp di defee bi mu jàngee alxuraan tarbiyo ci Serigne Saliou Mbacke ba noppi itam mu wëyal li nga xam ne moom rek la xam muy jàng ak jàngale. daara moom dafa mel ni day ndonoom ndax dégg naa ko mu ni seen laat mas na ko ni am ndax yaa ngi ci yaa ngi mu ne ko jàng ko jàngale moo mu ne ko moo moo moo la meñoon mu ne ko damaa bëgg a doon taalib mu ne ko mooy sa ndono tarbiyee gi yàgg na ko te doon na daara Tuubaa Belal noonu ak yoy ngi lim yëpp ay dongam ay limu bi may ñew fi ay dongam yu bare bare lama ma ñu bokk nek ma nek ak ñoom fii di ko jàppale ci tërbiye googee bi dem dene ba xawona jotali tuti dong bu ko yalla bolé boo dee tuutànk limi muy xalat ci yor mo nga jang alxuraan ginnaaw bo jangé alxuraan ba pare la ca top mo ñu jàngal la ab liggéey ba bo jugee ci mom am sa jomi bop waaye ci biir loolu it du ca yam ak yow da lay taf ci boppam jàngal la addina. waaw waaw loolu moom loolu moom euh, mi mi ngi ci ndax ndax euh, ci la nekkoon naka naka jekk ndax euh, bi bu ko suñ sel yóbbu jàppandal dafa daan dafa daan dafa daan jàngale boole ko yor daara ji waaw bi mu fi jógee itam njaboot yi mu yi mu yor nekk ci daara yi. da leen da leen di daleen leen di eh, dañuy boole jàng eh, eh, ak liggéey liggéey ndax suñu seetlu daan wax naan njàngum kese andiwu leen fi dañuy boole jàng ak liggéey waaw li li li muy loolu nag lu muy tareel la ndax da koy da koy jàngal ba noppi. daara ju ci ne ay ay gone nga fa ñu takku mu wut ay jàngkat yu xarañ yoo xam ni barki démb rek bi ñu demee daara yi ndindi ji yaakaar naa xam naa da ngeen ko gis ci vidéo bi. Eh, manam lu ñu Al alxuraan rek am na ko fa jot a mokkal waaye dañuy mokkal it ay xasida yu bare bare bari boo demee da nga fekk ay doon di terbiu, lañ tolol ca tool ya ñu di ko def eh, di jàng di jàng xasida ku ci dem ba war a toll ci war a xam-xam ñu jàngal ñu jàngal la xam-xam. gal soo maama mu jël suuf lañ lañ fa doon jaay mu jënd ko lañ fa tayle woon mu jotaat ko jot suuf sa yóbbu fa daaray alquran yóbbu fa sëñ daara muy jàngale lu ëpp juróom fukki gone nga fa di jàng alquran. waaw nekk noo xale ci daara ji de muy wuute wut ak ne Serigne Saliou daan yare ndaw ñi rek ci daara ji muy Serigne Samsatu ba mu tegee ba mu tegee daara gi suñ loxo dañoo dénkan ni liñ bëgg ci ñoom mooy jàng liggéey ni Serigne bi daan def ci mag ña muy bu ñu xëyee suba daañu. jàng alxuraan ci waxtu yi yelle yi mu ware bu ñu yeewoo fajar dañeen jàng ba biteer jot ñu wàcc teg aluwa yi dem ca tool bu fekkee waxtu liggéey la ci muy nawet waaye bu dul nawet la moom dañuy continuer waxtu yëpp lañuy jàngale waaw bu dul nawet moom dañuy jàng waxtu yëpp bu dee nawet la nag bu huit jotee dañuy puus dem ca tool ya ba une ba une heure ñu wàcc ñu wàcc ci daara ji bu ñu loo rek dañuy duggaat 3 heures matin 3 heures de matin ñu dugg ba 6 heures 30 la ñuy wàcc noonu lañ ko yore njàng ma ku xam daara sëñ Xamsatu sëñ Abdul Ahad moom xam ni baaxoo woon la yalwaan waaw loolu moom yaakaar naa ne ñu bari dañ ci mat seede moom bëgg ko bu ko yëgee it yaakaar naa ni dina mën na ci am ndax bëggul yalwaan ndax léppam daa mat ci daara ja lépp gone yi sëñ bee ko yor gone yi duñ yelwaan li mu dund ci daara gi sëñ bee koy joxe moo ko gàddu lépp moo koy joxe dara lépp moo koy joxe waaw yenn ci taalibe yi nag am na ci ñoo xamante ne ñoo ciy am def ay liggéey yu mat am solo benn ci doomam ju baax ji sëriñ Seexuna mën nañoo wax sax te sant ñu ko moom it taxawaayam rafet na lool ci daara ji donga yi moom li yàlla waroon a dimbalee nga fekkoon ñu ñu wàcc ba nga fekk leen ñu toog ci daa ci biir daara ji ni mu leen ñemelee boppam ni mu leen lee boppam. Mhm. ci ci ci bëgg gi mu leen bëgg xeet gi mu ci ñoom. Mhm. danga naan bu bu bu am si wax naa Mbàkke gàttee xel. Mhm. da ngay defe ne kii moom. day am lu muy dab ci yow ngir di la ko neexal ngir yàllaa ko xeet ci bëgg nit. yàllaa ko xeet ci bëgg gone. ak ñeewantu gum leen ñeent aw yërëm gum leen yërmaande jum leen ëmbal. ndax mooy seen day mooy seen baay. ñun dongay boppam yi ñoo ko gënal ñabootu boppam ay doomam tekkiwul ni daa sàggane doomam bi daana wax ni yéen ñii di samay donga yéenay samay doom soxna yëf na ñooy seeni way jur wu jigéen ku ci mas a jote soxnaam boo yeggee yow lay faral bu soxna sa booleeg moom yow lay boo tooñee xoolu ko boo tooñul xoolu ko te fonkum fonk ab donga lu ma yàgg seetlu la ci moom lu ma yàgg xamit la ci moom man nag dama koy sant cantu xol ndax nu ma nu ma mel rek moom lu ma amit moom ginnaaw bi mu jógee ci wàllum njàngale ci daara yu bari yu mu samp Serigne sa taxawal na daara yu bëree bari ci wàllum mbay Serigne sa di gayndeek liggéey mën a liggéey ak nangoo liggéey moo war a daara yu bari yi eh, mu doon jàmbaari liggéey nag boo demee sanc na ay tool fu ñuy wax tubaabelal dëkku baayama daa dem ba génn dëkk ba dem ci digg àll ba mu gor fa lu bari def fa daara ju mag defar ko ba mu àgg jënd ay machine jënd ay tracteur jënd ay machine bay di jënd jiwu seer di bay ca àll booba ñu ngi fi ci Touba Belal mm-hmm. dëkkub Cheikh Abdou mm-hmm. waaye fii ci Touba Mouridine mm-hmm. daara yi Cheikh Abdou Lahad di suuf su màgg su barkeel diggante fii ak Touba Belel gi ngeen ak fii ñu nekk ci tool yi war mm-hmm. ma ak euh, juróom-ñeenti kilomètre mm-hmm. desaan na it lu ko lu ko ëpp ci mm-hmm. kanamaat ci penku bi muy forage bi ak beneen foraasaat ci penku desaan na lu ma juróom-ñaari kilomètres ci penku li ngeen daw ci soowu bi it mën na juloon ñeenti kilomètre ak fii ñu ne ci Saalum ak gànnaar it fa ci ne ëpp na fa fukki kilomètre mu ne fi ak njabootam di fi liggéey bu Serigne Touba dee amee mbokkin ma ne ay mbokkam yi nit mu dogal leen fi ñu di fi liggéey. fii moom mi ngi fiy bay gerte mi ngi fiy bay ñebbe euh, mi ngi fiy bay bisaab mi ngi fiy bay xaal façon yi bëree bëri Serigne Hamsatou mi ngi ko fiy bay. Hmm. gone it wax dëgg yàlla tumbudaanke wuñ ci dara. Hmm. tumbudaanke wuñ ci dara. Hmm. fonk gim leen fonk ñoom ñi fiy liggéeyee da nga naan euh, ñoo di njabootu boppam sax waaye ñoo ko gënal ay doomi boppam ci li mën a ko mu ne saalee hmm. ngir xam ne liggéey bi muy liggéey Sëñ Tuubaa la koy liggéeyal hmm. ñoom ñi ñëw taxaw fi ànd ko di ko liggéeyal moo tax mu fonk leen hmm. demaat dëkk bu ñu wax gal soofus maama mu jël suuf sa lépp lañ lañ fa doon jaay mu jënd ko lañ fa tayle woon mu jotaat ko jot suuf sa yóbbu fa daaray alxuraan li mu am ci ay tool bari na ay kilifa yoo xam ni dëkk bi xëy na féete ko ci mag ja at te te te te te te yoruñu ko ndax am na tool ñu nekk jogo yaatoo yaatoo yaatoo. suñu Ibra soxna. moo sama yaay ñoo bokk jenn ndey. moom jox kër gi sëñ laat bi ñu ko joxee ba noppi. dem ca tool ya joxaat ko euh, addiya toolam boobu ñu naan suuru ba. sëñ Ibra soxna waaw sëñ Ibra soxna moo moo moo moo ko jox sëñ laat def ko addiya tool ba tool ba léegi. sëñ Sidi da koo teg ci loxol sëñ Amsa bi mu ko joxee sëñ Amsa sëñ Amsa daal di koy joxaat sëñ Abdoulaye Karam rakam waaw waaw fii ne moo koy taxaw liggéey ba waaw liggéey nañ fa liggéey ba am solo tool yi fi mu euh, da laa fa bàyyi carotte carotte lañu fa si xam naa am na goox yi war nañ ko buddi na goox naa war naa tool ci rafet sëñ bi sax doon na wax na euh, bëgg na faa àgg waaw sëñ Amsatu euh, da dañoo yàgg defe naa mën at yoo xam ne vraiment mu nekkal ñu Touba ñu am kóllëre gu dox suñu digganteeg moom ba nga xam ne tey bu mu ñu waxee waxum wàllum garab euh, dañ cee kontaan ba euh, maanaam ba ñuy ñëw sax dañoo dox parce bu ñu ñëwee këram waxtaan ak moom dañ ko ne ah sëñ bi de ñun de ndigal rek la ñuy xaar boo ñuy jox ndigal ñu def ko. ñëwoon fii tey pour liggéey ak sëñ am Amsatou Mbacké jëmbatul kay garab ñaar téeméeri garab maanaam 200. def ko ci xur mi ci nga xam ne peut-être moo gën a approprié pour def ci pour ay garab. ñaar téeméer yëpp ay limon la. reboisement bu ñu ko waxee rek day am suivi day am évaluation léegi nag suivi ak évaluation dañoo ànd ak ay ay ndaw yoo xamante ni la ñoom ñoom sax ñu si mbay mi kon ñoom dana gën a xam lu bari si mbay suñu àndee nag ñoom tey war leen liggéey bi wala ni ñu ko war a def maanaam arrosage de entretien yi te ñun tamit bu demee quelque temps dañuy ñëw defaat suivi ndax reboisement ak moom ñoo ànd. am na tool yu nekk wetu ndindi gii am na tool yu nekk ci euh, ndokk gii boo xam ne la mu fay bay lu bare bare bare la hectares yu bare bare bare am tool yoo xam ne ji na fa lu mat fukki bëri koy kàmb dana fa ji lu mat ñaar fukki bëri koy kàmb yi dana fa ji bëri ko sëb ak dugub ak lay bay waaye li ci gën a am solo ndax euh, ci ci ci liggéeyam boobu mooy loolu muy bay du ko lekk lu muy man di def diko bay nu meuna a toll muy Touba belal barki dem lañ ci joge ak gal tol yeb lu ci nek rek dana ko jox addi ki fi neel cheikh cheikh abdullah nek addi suñu cheikh abdullah taw ñoom dana sam waye leg leg jur ga dana dem ba bari lol ko xamni nagge ki xar la non la koy buwe jox ko addi joxe day xuru wo xamni ñu bari ñeme wuñ ko yeer te mu muy xuru mu ñeme mu jox joxe addi ndax ba may gis bu mu jox seigne saal téméru téeméeri en 87 ak léegi du ñaari fan boobu boobu jamono metti na lool boobu bàyyi ma ngi fi di dund Cheikh Abdou Lahad boobu sëñ Saliou njàpp nda la ko fekk tool bu ñu ko bàyyaloon noonu la fekkee sëñ Saliou ci biir kees ga jox ko addi jooju téeméeri junni en 87 xam nga ne kooku mu ngi doon dox ci Serigne Touba Serigne Touba ñor na ko lool euh, toolam yi muy yor yëpp lépp lu ci ñor noonu la koy jëlee jébbal ko sëñ Sidi bi mu gisee ne sëñ Sidi liggéey bi muy liggéey rëy na waaye badd liggéey du kii dafa ñëwal boppam jël engagement ne ko damaa bëgg bu tool yi noppee te nga jox ma ma ma baddale ko loo mën a bay nag bayal baddil gi moom bu mu la jaaxal. at mu jot sëñ am sa lay woo ñetti fan dañ ko fa am bàcc ko euh, jëri ko sol ko ci ay saako dajale ngooñ mi at mu yàlla sakk dañ fa am ñetti fan yoo xam ni ay junni junni ñu dafay ne lu bon bon dana fa dépensé ci xaalis loo xam dana mat fukki million yoo xam ni ay frais diggante frais gasoil ak ay oto ay lekk. bu ndigal lu rotee ci sëñ am sa nga xam ne naaf nañ ko ba noppi da ngay daal di gis mu daal di yónnee fa dooleem nekk. muy muy ca soowu jant rakkam a nga fa sëñ Abdou Lakaram yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér suy dégg kàddoom rek soowu jant gépp àndandoo nga xam ne bu ñuy ñëw fii danañ ëpp ñetti téeméeri oto lu tool yëpp bari bari bari gën jaa yàgg ñeenti fan lay doon mu tàggale ngooñ mi ak gerte gi jal gerte gi jal ngooñ mi mën naa caa jox benn firnde daaw xuma daaw jox seen siidi am na lu ñuy wax ba mu tudd ma mu ne ma man du ma ko bay waaye bu ko bu ko sëñ am sa bayee jox ma ko kon firnde la ci nii da ngay liggéey di joxe. Serigne Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nekkul Serigne bu nga xam ne rek ci wàllu spirituellement rek ci lañ koy gis. waaye wàllu àddina itam suñ borom jàlla jalaaluhu may na ko ci xarañte gu yaatoo yaatoo yaatu ci noonu nag dafa dugal loxoom bu baax a baax a baax a baax ci développement wu Touba. sëñ Saliou jox na ko ñaari pénc benn bi saam la nekk mu taxawu ko ba jumaa fa kër sëñ Touba ne fa. ñu jox ko fa la ëpp ñeenti téeméeri paak lépp daf ko maye amul ku mën a taxaw ne bii sëñam saa ma ko jaay bokkam yépp ku mu xam jox na la ñii fukki paak ñii ñeenti pak ñii ñaar fukki paak ba mu jeex sëñ joxaat ko fii nga xam ne moo nekk ci yoonu njurul mu tudde ko azna boo demee ci jalibatul dan da nga ko da nga ko gis def fa kër woo ay bokkam yépp ku ne mu may la fa kër ba noppi def fa jumaa dëkk foofa nag te teewut ne amoon na kër ci asalem ay def ko bàyyee ak njabootam ñëw beru fii ngir lan ngir liggéeyal yàlla ak jaamu yàlla. te nam ko doyloo woon di jël ay daara di ko fa samp di ko samp ci kanam di bëgg ñëpp topp ci moom roy ko xam ne dam bëgg rek la fay def loolu mu ñëw ba indi ko fii ba da dagg ba bi mu nattee ndëkk bi def ko noonu ma la wax def fi nu mat ñaar fukki kër Sëñ Tuubaa ak ñett juróom-ñett mu yëkkati ji yu bari jox ko ko. dox ko la fa wër moo ko saam gi kër sëñ Tuubaa gi moo moo ko miire tabax jumaa ji ku fa dëkk ci la ko wër moo la sëñ am saalamay pat te it kenn mosu faa gis ku ne damaa jaay meetar yëngatu bu ñuy woote ci boo xam ne day dëgëral ak taalibe di sagal dëkk bi di sagal murid yi boo ko ci mu mu mu mu wuy si la ca te dana ci joxe li mu am lépp te man maanaam ak kàttanam ak wërsëgam man daal xam ci moom sëñ Saliou bu ñu ko booleeloon tam mu doyloo ko bu baax a baax sëñ sëriñ Tuubaa waccal buyooti kullaha masajida dafa waxoon ñaanoon yàlla këram yépp taxaw taxawaayu jumaa wala jàkk moo xam ne kon kër sëñ Tuubaa dara gënu ci ayay jàngukaayu alxuraan ak jàkk mu ne kër sëñ Tuubaa gi danaa fi def benn institut boo xamante ni bii ci biir maqarul asna xadim institut xadimul asna lay tudd institut boobu ba demee Kuuba dana mat un milliard et quelque. sëriñ taxawal na projet bu mag bu nga xam ne ñu ngi koy wax Touba ceinture verte muy projet boo xam ne dafa war a naatal Touba ci wàllu garab. Euh, ñun projet bi euh, lu ñu yàgg depuis université ñu ngi koy yàgg bëgg waaye yàlla da ko dogalee ci moom ci ku ñuy wax Moustapha Moustapha Seck dafa am jamono ñu koy junj muy benn taalibeem waa mu wax ma ko nag ne ma ah suñu am sa de am na lu mu xalaat pour nga defal ko ko ma ne ko ah mu ne waaw mu ah, ko dafa mel ni comme suñu tubaab daf ñoo boolee daje ci loolu mu bëgg. ndax bañ ñëwee ba déglu ko li mu waxoon dafa méngoog ñun lu ñu doon xalaat muy liggéey Sëñ Tuubaa nag bu bunta ñàkk ndax soo xoolee Tuubaa wax naa ko ko waxaat ko ko mu ne ko tubaa baatu tubaa ci boppam day garab waaw li ñuy wax ne mu ngi si sajaratul muntaxaa euh, muy garab boo xam ne ker gi daanaka su fekkee da ngay dox di nga dox lu mat téeméeri at pour jot ker maam wër wër ta euh, dattu garab gi te ñu wax ne ñi nga xam ne tey aji texe lañ daanaka ci xob yooyu lañu di defarale yére yi kon ñun wa Touba euh, war nañ nek ñoo xamné nit ñi dañuy xol ci garab waaw tay it yaakaar naa projet bi señ am sa ni ko xalaatee won nim mu ko defee dina jéggi Touba dem ndax ñu ñëpp lu bax lañ bëgg. budget projet Touba Centre Verte euh, ñu koy xayma ci 1 milliard 326 millions euh, quatre vingt donc lool yëpp so xolé moy jëm ci walu installation 50 espaces verts ci biir Touba ci différents gox yu bëré bëri donc 2 millions d'arbres lañ xalaat ci projet bi am euh, sur les 5 ans à venir donc mun ko ëpp sax waye li nga xamné tay euh, projet da ngay object da ngay da ngay def da ngay tek ay objectifs xol ndax mën nga ko atteindre wala mën nañ ko euh, dépasser donc loolu moy ki bi ak quatre pépinières yo xamné ñom dañuy def production d'arbres am ne ñoom suñu xasee tambali rek ba implanter def sen positionnement selon axe yi nga xalaatoon ñi ñu sank ñom danaka site bu ci nek muy pépinière bi ñom dinañ def lu mat. cinq cent mille arbres par par at maanaam cinq cent mille arbres site pépinière bu nekk loolu lañ lay defal arbres yi nga xam ne nag day jëm ci wàllu dëkk bi di wala si nga xam ne tey jii ci yoon yi lay jëm ak yooyu ñoom euh, su boobaa dañuy ñëw ñi nga xam ne lañ formé ñoom ñoo koy taxaw yi nga xam ne tamit day jëm ci kër yi nga xam ne c'est des arbres fruitiers loolu tamit dañoo xalaat ni lu mu gàtt gàtt dafa am lu ndaw loo xam ne dina symbolique euh, ñu joxe ko ngir ñi nga xam ne ñooy saytu liggéey boobu tamit ñu ñoom ñu mën am nuñ nuñ doxee. développement bi nga xam ne moom la Serigne Amsa di mënee yemalewu ko ci Touba. fii ci jogo Serigne bi ñëw na fi def fi pose première pierre. ñu ngi fi war a def kër Serigne Abdoul Ahad goo xam ne R plus 2 lay doon euh, ci wàllu alal alal ju takkoo takkoo takku moo koy defar te lépp da koo def ngir toppaat tànki way juróom wa Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne dëkk bii daf koo fonkoon lool. am mukk ñetti weer yu doxul fii. fee ñee toog néeg néeg néegu ñax bu mag moo fa nekkoon. boobu néegi ñax moom ñoo xew. booba jàkka ji dañ ko sakkete barax xam nga barax. waaw barax lañ ko sakkete. Mhm. waaw. moo ko rëddagub tànkam ni léegi nu dëkk bi mel nu jàkka ji mel. ni la dëkk bi mel. waaw waa dëkk biit nag ñi jàppe woon euh, sëñ Blaat ñu lay jàppe sëñ Amsa mii sëñ Amsa mii nag ñi mu def ñun ñi lay ndax su fekkee. sëñ Abdoulaye danaa ñëw fii di fi tabaski di fi waree tabaski na fi waree fi fii waaw tabaski na fi waree fi waaw léegi nag loolee loolee la sëñ am sa di dundalaat nee na moom sëñ am sa defut ngir boppam de ndax man ab taalibe laa ñun ñëpp sëñ Sidi mooy sunu kilifa lii nag dama bëgg su noppee rek doon mbetteel ci moom ñu defar ko ba mu ñu dem jëli sëñ Sidi andi ko mu yendoog non sant ma gërëm du càggee ne day wax procès bi rek teg ko te fekkut mu pare wala mu doon lum nar déedéet bi mu ko daataaka wax pare daanaka boo xoolee la mu dajale ci ciment moom ci boppam ngir commencé ko liggéey bi pare na ci études yi pare na ci plan bi dajale na xaalis bi koy bi koy tàmbali Serigne Amsatou Mbacké eh, léeg leg nit yi di gis ci télé yi muy def ay sortie wala ñukoy dégg ci radio yi wala yenn ci site internet yi eh, ñu bëree bëree bëri dem ba lé ko nit bu nga xamni nit bu tang la ci lool nak séti nañ ño xamni ay nit yu ko xam lañ bu baaxa baaxa baax ñu wax ñu lu bëree bëree bëree bëri ci dëgg-dëgg ji koy Serigne satou Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. yonent yi amuñ solo ci du du du du Muhammad do Abdullah dede lépp solo may Rasulullah sëñ Bamba ci tiñ ci boppam dimmi sëñ Tuubaa yi lu ci àggee Xaadimu Rasuul ji da mooy affaire bi Xaadimu Rasuul mooy marte bi nga xam ne kenn amu ko ci waaye bu rek moo maa moo jaara bokk ndey bàyyi waaye Xaadimu Rasuul mooy exceptionnel bi nga xam ne moom yàlla defal si am si moom foo war a wisee xool ko <laughs> mooy xam ne Xaadimu Rasuul di li li li li ci am ci yàlla eh, da ko da nga ko ñàkk am ko moo tax mu jël léppam jox ko ba bàyyam yóbbu foofa jox ko bi suñ saa yu tët bi ko gërëm ko waxaat ko bàyyam gërëm naa ko suñu ab Fall Abdou moo la jox seer defe naa loolu waxoon kon rek am solo ñu ñaan yàlla euh, yàlla muuram rek te euh, ñëw gi fi ñëw yàlla ko suñu tuwaa dimbali rek sëñ am sa dafa def ko naqaree xam nag lool naqaree xam gi mooy xam la ko neex dëgg-dëgg wala la ko naqari dëgg-dëgg dafa yombul nag lool dafa dafa mën a muñ lool lu ko naqari mën a safoo ko soof lool ba xam la ko naqari ba xam la ko neex dëgg ak la ko naqari du yom waaye xam naa ne day ak taalibu Sëñ Tuubaa di xam naa ne neex na ko moom loolu ñuy li Sëñ Tuubaa doon taggee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam naan ba'sun wa ba'sun li man laanoo man jaaru man nga ko ñëw ci Sëñ Amsatu ku nooy la ci bu fekkente ni bii nooy jot na waaye gar lay doon ci boo xamante ni bii nag taxaw jot na gar waye buy taxaw nak du taxaw ngir bopam day taxaw ngir islam diine islam wala mu taxaw ngir yoonu murid wala mu taxaw ngir nit mbokam mom da nga yakane ne sëñ am sa du ma gaynde la waye bu bu rek day am bu la nexe jaar ci kawam jall moy gëna noy wëteen borom xam-xam la wax du yàlla nit ku wayef la ku simple la ko xamni euh nit ku amut xel deug deug deug ak le. da ko sax a jéem a yàpp wala nga sobental ko walla nga defee ne sax xëy na euh, maanaam ñeneen kilifa yi dañ ko ëpp daraja ndax nit ñi moom liñ xam léegi mooy le paraître waaw maanaam nit ñi gis loolu lañ xam am sa nag nit ñi gis dara ñoru ko ca du yére yu rëy du oto yu rafet du kër yu rafet waaye ci jëmmi boppam sax ak doxalinam sax lépp spontanéité la lépp lu simple la waaw maanaam ngeen bu ngeen toogoon fii léegi rek bala ngeen fay jógee dana fi wax loo xam ne leen reetaan loo nga xam ni eh, ku mu gis dalay def ni boppam amut euh, lenn lu muy yëkkati wala lu muy xëccu lu li nekk ci biiram rek lay wone jub nangoo liggéey te lum liggéey nangoo delloo ci yàlla. ndax euh, loolu moom pas-pas boobu alhamdulilah kañ na mi ngi ci deretam mi ngi ci pas-pasam mi ngi ci yitteem waaye day loo xam ne li ku mel na moom ak fi mu diggante bii nga xam ne fi la fi la juddoo yaro fi ñu ko seq ku amul bopp pas-pasit yarin woowu da nga ko xam ndax sëñ Saliou ma ma ma ko lu mat a liggéey na ko sëñ Abdoulaye sëñ sa sëñ ma ko jur lu mat a liggéey jox na ko doon sëñ ba diggante boobu ku fi nekk waroo xam lenn lu may liggéey joxe waaw it tey sëñ am sa jëpp ci loolu la nekk. sëñ bi du tëju kenn loolu moom mooy wane ni mu oyofe rek euh, ndax nit ku oyof la sëñ bi du tëju kenn ngay mag di xale noo mën ci toll du tëju kenn xale bi am trois ans sax mën na koo taxawal fenn waaw amul ku muy tëju du taalibe du dong du kenn. gone gu tuuti ak taalibe ak ku mën doon lu mu xeebu xeebu. bu ko wooyee fu mu ko woo mu dem bu ko yónnee sax mu dem waaw te te nëbbutuwul kenn tëjuwut ah ku ñëw ci saalam bi nga koy fekk te it ñëpp lay waxtaanal. Sëriñ Amsatou li mu gën a bëgg ci nit mooy nit ku dëggu waaw nit ku dëggu tey dëggal. bu nu ko Sëriñ Tuubaa yëpp si am sa amuñu te ku ku mu mënut a wax dëgg du ci masaal mais kenn ko ànd koy xarit am sa rek na nga wax ku dëggu la. du xarit ku taxande du xaritoo ndax du ragal kenn ginnaawam ndax daw dawu ci nit ki dara ndax lu lu yàlla terale asgor teral na ko lu suñu toog terale ku bokk na ko kon nag jomante muy muy daw keneen si am daa daa naqari naqariwul deret dafa dafa dafa xam boppam sëriñ Amsatu naqariwul deret tàngul dafa dëggu mooy li ma la wax rek dafa dëggu waaw mais naqariwul deret tàngul bëggul sax ku ko mere vraiment bëggul ku ko mere nit ku nit ku li ma la wax rek nit ku woyof la ah nit ku dal la nit ku macha allah ku am yar la waaw waaye tàngul de tàngul. lim lay wax rek moo nekk ci moom amul ñaari xar kanam hmm. xar kanam rek la am loolu sax laa gën a fonk man nii ndax ni ma ni muy ni dundee ak man jamono ñu ne wenn melo la muy melo baax ak jub ak dëgg hmm. ak jàpp njàmbaram la ak doylu dugg-dugg yi ci rëkk na lool ak réew mi bàyyi ma gisuma na ko maam féetaleel lu mu ci am doy na ko sëkk moom daal lu baax rek moom lañ xam ci moom naka jekk démb ba tey mosunoo tàggoo ba ñu ay gone ba su mosunoo tàggoo musta am jën yitte lu may yitte kilifteef mos a jóg ci kilif def maanaa waaw mos dañ ko mos a jóg ci kilifteef waaw ba fi mu ci loolu rek la nekk ba fii mu ne mu nekkal ba boppa boppam di jariñ boppa ma di jariñ mbindeef yi teewul ba tey ji kilifteefam waaw noonu rek moo moo moo mooy jukkoy so xam naa ci moom it ak ñàkk kiñaan gu wóor koo xam ni ku mu bokk sëñ Tuubaa na ni mu def boppam na la noon noona la la def mooy wax ne sëriñ bi kenn defalu ko dara la nga ko mën a delloo njukkal mooy yor melokaan woo xam ne ku la gis xeymam sëriñ Tuubaa loolee la sëñ Amsa di doxe fii ci biir réew ak bitim réew di arab yi wax maa laa yenn sërif mooy jëmm jooju بسيفهم تسرين من أبوه كدون مثال دم مهنة ولا ما رأى المؤمنون الله حساب خالو هاشا ما وحد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما سادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه فمنهم من خدا النحبة ومنهم من ينتصر وما بدل وتبديلا ليجسي الله صادقين بصدقهم وفين يقول سنين أمسد فوف لنك نوني والله شاب تحقون nga xam wa maa shaaduhum moo bari a woomatu ci seen borom rijaalun sadaxoo góor yooyee boo leen ma mën ngaa xool jëmm ji foofee la nekk moom ñaar ñi képp la koy def sëriñ Saliou ak sëriñ Touba waaw na nag mu ngi topp ndax mu ngi topp ay magam ndax amul menn magam moo xamante ne bii wóor na ma ne bu yëgee sa yitte dana yendal wala mu fanaan te loolu fajul waaw te loolu mën nga ko tàmbalee ci kër gam dëkk ku ko ne ku ko xam ku ne xam nga na muy doxee digganteem ak ay kilifaam yépp dama caa doy dama caa doy exemple sama mbirum bopp rek ci man rek rakam laa waaye lii ma ci seet nag bokk yi bokk ñaari wajur taxul may wax nag damay wax te yàlla tax waaye dama caa mat seere ndax ma ci mat seere mooy newana nga gis mat ju taxaw rakam ñiw ma taxaw lolou ak bax la jikko jua ju bax jo xamni bu ci ñëpp mag yëpp bu ci ñay yelef seen njabo ñëpp ñu am ay rak ñëpp buñ ci royé na mom rek ayam muy musul ci ma indi fii te ci dara nak loolu loolu jikko ju baax la euh, yàgg maa jàppale it moo na ma indi fi rek baax waaye yàgg maa jàppale loolu loolu ci jikko ju baax la boo xam ni ku amu kiñaan doo ko def ndax dégg naa sëñ Blaat mu ji boobu ci làmmiñ laa ko déggee mu ni li may jàppee nit moom mooy fulla ndax nit ki boo mun fulla euh, du du du mën def dara ndax du mën a doo liggéey du mën a du su borom sax du du ko mën a liggéeyal ak way itam nag xam naa ko ci moom way way nag mooy lépp ndax sëñ Abdou Lahad am na lu wax ci wàllu way way way rek lu mu ci wax ne ne dafa waxoon ni dafa am comme laa yenn mu ne ko xam xam xam nga xam nga wan rab mu mu ko mu gën a wayade ci ci àll bi mu ko déedéet xamu ko mu ne ko till moo ci gën a wayadi mu ne ko xam nga wan rab moo ci gën a way mu ne mu ko déedéet mu ne ko gaynde moo ci gën a way waaye mu mu ne ko till li muy wayee de wayee de bu toppee ci gaynde léegi mu way waaye gaynde tam li muy way way way bu toppee ci till léegi mu waye di <laughs> fiam sa mosuma fàttali ko fu mu tege doo fu mu digge doomu aadama di ko toroxal mosuma jee teg sama bët ci ñaar fukki at ak juróom ñett wala jàpp juróom ñeent ci ren maa ngi ko ànd ak moom 91 ma ko joxoon ñu ngi dañ ma ko joxoon ba tey di be di ñaar fukki at bu ma juumut ak juróom-ñeent musuma fekke fu sa ñoom sam sieb lat tege doomu aadama di ko toroxal fi ne dangay gis nit mu def safaan boo xam ni da ciy tiit sëñ bi yëg ko mel ni ku ko yëgut sëñ bi da koy yëg mel ni ku ko yëgut dañuy faral di toog mu naan ma am sax ma ne ko mbàkki mu ma mu ne képp ku ma jaxasool xam naa la lu nit def xam naa ko lu nit wax xam naa ko lu ma nit jàppe xam naa ko waaye am sa ma ne ko mbàkk mun ma koo mën a àndal bis koo mën a àndal euh, euh, benn bis la wax du ñàkk waxtu mu ca defee lu la neex nee waxtu woowee nag mu ca defee lu la neex lu mu la mas def ci bis ba ci lu naqar na nga ko muñe waxtu woowee dañ ma koo tudde jébbal ma ko ba pare mu yar ma diirub ma nekk ak moom ba nëgëni li ma gën a yéem ci moom mooy mën ngeen muñ mën a muñ moom kenn laa ci nangu mu doonum nawleem muy suuf waaye ku mën a doon gëm na ni seen som seen blaat moolu daq muñ sëñ bi ki ko gën a soof xamee ko ki ki mu gën a bëgg maanaam ki soof sëñ bi ngir ay jikkoy boppam bi mu amee xamee ko ki sëñ bi bëgg kenn la ci ñun ci li ñu boole dafa bari doy sëkk rek diggante ak Cheikh Abdoul Ahad ak seex Abdoul Khadir ñun doy woon benn ci seen lépp ñun doylante woon ñun bëggantee woon loolu rek bu nu boole woon doy sëkk. suñu diggante diggante mag ak rakk la diggante baay ak doom la diggante sëriñ ak taalibe ñett yooyu bu ci ne taxaw na taxawaay sama diggante ak moom ba ma sëkk. Euh, maggal gi nga xam ne moom laay màggalal sama baay sëñ Aliou Fall Mbawar ba tey maanaam ji mi wax na ma nii maanaam mooy moom la gis si màggal koo xam ne moom si am Amsa dafay ñëw suuba teel yendu fa daanaka ba takkusaan mu door a dem te lu mu xat-xat lu mu tàng-tàng du ko jàmbat këram gi saa bu xëy ni ñaa fees del ñuy moslu ak ñuy muslu ñoo fay ñëw hmm? ñuy moslu ak ñuy muslu ah mus nag rek moo moo moo moo fa indi Sëñ Tuubaa te loolu <laughs> loolu gis nañ ko ci ñu ngi koy dox ndax ndax ku ku ku ku dem ba jàkka jépaas ba dikkee mu nga jaax si diggante si borom nga dikk mu ñaan la yàlla mu faju loolu rek moom moom moo fi moom moo mooy mooy mission bi xam ne moom la Sëñ Tuubaa ñëw ci jamono te mu ngi ciy dox. moom euh, rek la ko la ko niiru a joxe googu nag moo waral tab googu nag moo waral mu mën a joxe ndax alal ci xol la nekk ku tabiwut mënut a joxe addiya nang nangoo joxe addiya la ku ko man da ci am lu nak niki lamay la def ta ki di ta ta ta la def ta yalla tax muy di def ta yalla tax muy def te wutalu ko ay séré dama ci tut bëgg sori lool. talib yi nga xamni dañoo aju ci mom wala ñu doon doon talib ay talib ay bayam wala wala ñu doon rek ñu ko xam wala ñu doon ay jambour sax yo xamni dañ ko deg rek di ñew di sakku ci ñom ci limal kenn ku ci ne bo ñewé do delok loxay nan waaw bu dee ngénte la bu dee dëj la bu dee siital la bu dee ab dund la lépp lu mu ci man ci jàppale la dana la jàppale waaw loolu moom du loo xam ne dañu naan kat am na maanaam joxe na lii wala joxe na maanaam ci la dëkk. sama kër gi li muy sagare sagare day jékki solo daalam ñëw toog di ko def feneen di ko def feneen te buy ñëwit muy indiwaale moo fi indiwaale dara waaye du ko fi du ko fi yaakaar a jëlee loolu du ko tax a jóg nemme ko bëgg dimbalee rek jaaxle wu ma ci bari ndax ma gee képp moom ma tëddee ñëw na fekk ma ko yëkkati alal ju bari jox ma daal wax dëgg yàlla ak taxawum daal ci njaboot gi moom moom ba foo koo ci dem waa kër sëñ Saliou du ay njabootam ak njabootu boppam ak ay dongo yeeg ñëpp koo ci dem noonu la. sëñ Amsa daal amul frontière ci yoon kër goo dugg rek dafa mel ni ma dafa mel ni ñoo mel ni sëñ Abdoulaye Bayam moo da ko may Sëriñ Falilu comme daa mel ne ñu essentiellement moom waaw mu jëm fii ma jëm fii daa mel noonu lañ jafe euh, ndax moom itam ku bëgg sëñ bi la te bëgg bëgg sëñ bi lépp bëgg bëgg sëñ bëgg sëñ bi wax dëgg tax te sëñ Tuubaa mu bëgg rek am njëriñ ci moom euh, li laa doon sëñ Tuubaa moom li ci ëpp solo ma bokk sëñ Tuubaa pas-pas te mooy mooy mooy mooy taalibe gi. sañ naa ci sañ naa ci moom lu ne lu mu am itam lu ne bu ma ko bu ma ko am naa ci wàll loolu lay dox rek man. lii nga xam ne mooy jumaam jee ba mu ko noppee ba mu koy ubbi maa ngi étali di tukki mbokk yi bari nañ fi lool ñu ma dàq fi lool ñu xam-xam bari fi lool waaye boobu ba mu ko ubbee rek lane man mii la bëgg ma ma jiite jàkk ja loolu rek doy na sëkk ci ak doyloo ak ub cër sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke léeg nga dégg ko mu mel ni gaynde si bi wala mu tàng jër bu laaj lan moo tax boo ko gisee mu mu amee melokaan woow rek xamal ne laal nañu diiney islaam ji nga xam ne bëggul kenn ku ko laal wala boog laal nañ yoonu murit wi nga xam ne mën naa maye lu nekk ci boppam waaye boo laalee yoon wi wala nga laal islaam rek jot nga sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ci lépp loo xam ne gars yi nas nañ ko ngir bëgg koo def ci dëkk bi wala ci yoon wi loo xam ne du noonu sëriñ sa day daa taxaw benn ci bi ñu bëggee fayloo sëñ Saaliw ndox rek ci dëkk bi bi gars yi waxee ba mu xam ne loolu ay pexe la la ñu Payib Jaxate damaa soxla sëñ bi ne ko dama ko soxla mu ne ko na daal di ñëw bi mu dikkee mu ne ko dama bëgg ñu waxtaan nañ daan waxtaane sëñ Saaliw ne ko am satu loolu mu doon mu ne ko daa luy bëgg a xew ko mu ne ko lu mu doon mu ne ko dañoo bëgg nga fayloo waa dëkk bi ndox rikk bu mu tàmbalee ci yow dañoo bëgg a taasal sa ginnaaw rek dama lay leewaay ngir suñ tubaa Seex Musaa sa bokk yooyu ne nga ak ñoom ci dëkk bi liggéey ci lu kawe njort lañ defutoon lañ la bëgg a def loo te mooy nga fayloo nit ñu dox suñ saari nga saay bët bu soob yàlla du tàmbalee ci man taxawaay yooyu yëpp sëñ bi da daan am pas-pas boo déggee mu tontu ca ku sa yam biir la ku wayaf la ku nooy mën a muñ lool waaye boo gisee yu mel noonu nii dañoo laal pas-pas sëñ tubaa lañ laal ta yoy mu ci tondu bu gisone kaddom gëna a kawe kàddoom gu gëna a kawe kàddoom mu addu ja xamna du ci wax waye gisuko nak ta muy lum mbokk muy lu mana lu mbokk ñu laal ko deret may yëngu bam ko bam ko def du ko tey léeg-léeg yàlla defal no ay xewal bañuy foyé mbirum señ doon ñukoy koy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 la daloon Palestine dal na ndax euh, Israël dëpp ñu woon dañ faa demoon ñu yaatu leen fa rek ñu néew ko lool ñu yor seen xaalis di jënd kër yëpp bagage yu am solo yi réew ma itam néew doole lool di jaay ba mujj nit ñu néew ñi fa nekkoon di woo ñeneen ñi seen yéen bokk ñëw ñu jënd ba ëpp leen fa doole nangu lekk ko fi mu doon la commerce bi day mel ni day bëgg a nangu Touba te gis naa ni ñi fi nekk am na fu wet boobu jàppale wuñ sëñ bi ndax dañuy fab seeni xaalis ku dimbale li ñuy wax ay salafiste ak wahabit ñi nga xam ne dañuy xeex sëñ Touba te nekk ci dëkku sëñ Touba bi nga xam ne sëñ Touba dafa waxoon ne ku fi ñëw ngir adduna kese am na fi waaye ku fi ñëw itam ngir àllaaxira am na fi ñi fi ñëw nag ngir adduna kese dañ leen a war a xàmmee wala leen a ràññee ñoom yokkuñu dëkk bi ci benn anam fay ñu lempo dimbali wuñ daara yi alxuraan nekk dëkk bi dimbali wuñ njaboot sëñ Tuubaa bu loolu ñu ko Touba ca euh, indi mooy moom mën naa koo seetal ni dafa dafa dëggu sëñ Tuubaa sëñ bi dëgg dëggu na nga moo dafa dafa fiir ci bi euh, da cee fiir euh, képp ku ci wax la war wax bu bu tontu ko tey. nun taalibe bi itam nekk ci Touba bi liggéey bi def ko ba tere ñu bàyyi ko. waa nañoo gën a xam suñu bopp war a gën a góorgóorlu jëm ci anam ndax toujours da gis nit yi nit yi nguur wala ñuy xëccoo réew mi suñ ko bëggee ñëw bi tubaab fexe ba sëñ bi tënk suñ baax digal ñu def ko waaye bu leen sëñ bi digalee ci noonu nag duñu ko def ñu sëñ bi war a digal ñoom mooy taalib bi day comme ni sëñ Tuubaa nekk suñ avocat la sëñ seen noonu lañu war a nekk suñu avocat bi suñu diggante nguur bi ndax dañuy tooñ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 sëñ tubaab moo waxoon ne wa bi ye jaddidi sabil bila idan aw alami wa bi ye jaddidi sabil yoonu yoonu lislaam wi ci man lay yeesale ci man man maa koy yeesal mu jàpp ne kon laxasaay googu sëñ Tuubaa takkoon képp ku attaqué diine rek attaqué nga yoonu murit ndax yoonu murit du tarixatu bamba du tarixatu nangam ak nangam tarixatul muridiya mooy ku bëgg a jëm ci yàlla kon ku jug jëm ci yàlla rek yoonu murit moo war a nekk sa gidd bi la yóbbu ci yàlla ci la ne moom dana takk laxasaay ngir nekk défendre l'islam défenseur u l'islam moo tax mu créer association bu tudd Xudaamul Xadim waaw Xudaamul Xadim ngir défendre l'islam ak di defendre tasawuf di digga defendre tarixatul muridiyya day mel ni sunu jullit tey lii xew léegi nekk ci kenn mu yor la yiir la suturaal la teral la ormal la ba noppi lay gor yaram lu ñàkk la te loolu nun taw bi ñu ngi koy def léegi di xeex njaboot ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nag fu jullit nekk njabootam la fu taalibe bi nekk dëgg njabootam la waaye nag ñoo ñu koy def itam dafa am ñu leen di wax rek loolu orma yi sëñ Tuubaa jox jox ko dëkk bi jox ko njabootam lañ bëgg a wàññi te dindi nag loo defoon ñooy ruux ba ne ñuy wax man ne nit mu wax di yëkkati kàddu sëñ bi di teg luñ ci war a mm. moo xam ay journaliste lañ moo xam loolu nag taalibe dëgg-dëgg boo xam moo koy saafara ak njaaxum kenn da ko daal da ngay bu ko defee sëñ bi di waaye boo demee sëñ bi damay dund kii bi dana dana bu ko def mm. def ba noppi doo koy ga sëñ bi buñ la bi loolu mooy mooy yoon te nit la ku war a ku war a bàyyi xel bu baax a baax a baax te di ko déglu ndax euh, am xel mu rafet la yor macha allah te it ku bëgg Serigne Touba la fonk yoonu Serigne Touba jis euh, ngeen ba tey euh, intervention yi nga xam ne mi ko ciy def ak position yi nga xam ni daf koy jël ci yoon wi am na ci yoo xam ne sax xëy na lu ne lañ ko ci wax néeg bu ne dañ ko ci dëkkal waaye moom loolu intéressé wu ko li ko intéressé rek mooy objectif bi nga xam ni moom moo ko tax di di di def muy liggéeyal Serigne Touba. ndax ku ne xam ne ni yoon yu bari na am róor yoon yu bari na am yàq bari na euh, lu jóg jëm si waaye li muy def sax ci loo xam ni duñ ko yëg moo gën a bari ba jamono yi rek yeesalaat nañ ko ba mu demaat ci magam sëriñ Mountakha euh, mu dul ay bis waxtaanaat ak moom mu joxaat ko ndigal yeesalaat ko ngir mu gën a mën a euh, liggéeyal sëriñ Tuubaa ci fegu ak ar attaques yi nga xam dañ koy yëkkati di ko ci yoon yoon mourid kenn musu dégg mu wax lu jëm ci ay intérêt mbooleem audio bo mu gis muy wax rek lu sàmm ya-, yoonu ñàkkoo la ak lu sàmm njabaru Serigne Touba gi. ab ab ñak nak daaw rek la doon la mu ñàkk waaye ku ne lu ne ñu ngi koy wax Serigne Touba dem diko saag dem di saaga ak njabotam di lu wax lu ñaw ta bo leen participer état bi def dara te boo saagoon Sall bu si woon boo saagoon ak ministre bi suwaan jàppale boo saagoon ak góor bi suwaan jàppale su la sax boo kaasee porte France la te kii saaga Sëñ Tuubaa saaga njaboot Sëñ Tuubaa boo leen porte duñ la jàpp kon day mel ni ñoom ñoo leen roox loolu nag moo tax ñun taalib leen am pour te jàpp suñu taalibe te dëggu te jub taroy topp suñu kilifa am na fu mu jaar foo xam ni ñu bari jaaruñu fa moo tax ñu mel mu mel ni moo tax nag saa bu amee loo xam ne mel bëgg naa laal yoon wi ba mu bëgg a laal diine ji buy def réaction du ko du du sax noonu la ko yàlla bind ndax sëñ bi laat baayam baayam ba noonu la meloon nangu moom ak taalibe rek ko ñoroon dafa jaayoon ak njuréenam jënd ko taalibe waaye moom itam loolee doon na ko ci baayam de jaayoon ak njuréenam ko taalibe bi ñu caricaturé sëriñ bu mag bi gis ngeen sorti yim ci def ni mu ci def ak yeneen sorties yu bari ba bi ñu agsee ci référendum bi te mu wóor ko ne lëndam na ci moom ci am na ci point yoo xamante ni bi faw mu leer ci moom ndax point yooyu concerné na lislaam te boobu réew mi yaa ngi dégg ñuy wax ay affaire wu ngóor jigéen yaa ngi dégg ñuy wax affaire nangam ak nangam te leerut ci boppam mu jóg takk laxasaayam tàllal loxoom ne man d'accord ma ci. Serigne Amsatou Mbacké jànge nañ ci biir documentaire bi ne ku yàlla may xam àddina la. muy xam-xamu mbay muy xam-xamu développement loolu nag ñu mën cee jàngate ne nit mën naa commencer par zéro gëm ne euh, Serigne Touba li mu yor doonul luy maye luy jaay la mu takk ndigam laxasaayu di liggéey di liggéey di liggéey ba tey li mu am ku nekk xam na ne Serigne Amsatou Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Ahad li mu am mayuñu ko ko da ko jënd ci njëg gu gu gu matalee matale matale mu nekk am njàngat nag ci jamonoy tey. lii may wax dama koo fekk. dana toog njàpp ndal daara ji metti loolu dana toog fukki fan juróom yoo xam ne kafe gum naan du te boobu ke siñeb laaj lépp nga fa kooku suñ tubaa ñor na ko lool mu taxaw nag li ñuy wax ku ja ku ñaan ñàkk boo jëndee am li mu am ci suñ tubaa da ko liggéey loolu yàlla teg ko ci loxoom jëm ak yoo xam ne daal mat a di di di di roy aw doxinam la ku mat a ñaanal mu yàgg fi li mu sémbal suñ tubaa yegg coleen sëriñ bi damay dégg ci moom ay kaddu yoo xam ne lu ci ne defar na adduna doomu aadama ba ca jiitu damaa mas a toog ak moom moom Serigne Amsatou Serigne Abdoul Ahad mu wax ni doomu aadama bu ne booy ànd ak moom bis bu set la lay naqari ca moom dee ko muñ la lay neex ca moom. man de dama ne lu ñuy def ci dëkk bi wax mënu caa jiitu xëy na ndax ay magam képp fi ne waaye na bokk ci ñi cay laaj xalaat ak ñi cay jiital ndax lam cay wax de li li li ko li ko Serigne Saliou daa. fi sëriñ yoonu sëriñ sa awoon képp la ko la ci la bu boobaa te sëriñ Saliou de mos a xañtu lu sëriñ bi yoonu sëriñ Tuubaa awoon rek moom doomu aadama bu xañ sa bopp doo fay sa bopp dañuy wax ne doomu aadama euh, yent war na ko gànnaayoo mooy bu jëkk bi na am fulla ndax boo amul fulla ku jóg foyee la bu njëkk bi danga fexe ba am xam-xam ndax ku jóg mën naa nax beneen bi na fexe ba amul fit ndax ci ay ci ay dëkk te xiif kenn mu ci dëkk beneen bi na nga fexe ba doylu ku doylu mën la jënd te askan wutu jaay boppam loolaay loolaay sama wax te yooyu yëpp gis nañ ko ci moom yàlla na ko yàlla dafa jot te dimbale ko dimbale njaboot gépp mbokku jullit yi ak mbokku taalibe yi lii lañ leen jëlee loon ci euh, Cheikh Amsatou Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ibnu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci teewlu bi waa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin ورحمة الله تعالى وبركاته